Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi leen gërëm leen sant yàlla rek euh, képp koo xam ne yaa ngi suivre à travers la planète mooy seen émission jàngatu bés bi jàngatu bés bi nag tey euh, ñu ngi ko jëmale sur les sapeurs mooy corps boo xam ni corps bu am solo la si réew sapeur pompier euh, mooy ñan mooy soldaar yoo xam ni ñoom ñooy faral nekk si ay coono ak ay jafe-jafe yu métti métti métti di jëm si mbirum lakk gis ngeen ni sapeur yi lu xew bu lakk amee ñu ne njëkk a teew risque la soit nga ñàkk sa bakkan soit nga mën a sauver au péril loolu mooy seen slogan kañ la ñuy créer les sapeurs pompiers jamonoy indépendance ba léegi nekk corps bu ñu war a jox gëddëm corps bu ñu war a respecté sapeur yi nit bu labee ñoom lañ fa yónni. Euh, nit nekk nit faatu si accident sapeur yi ñoo njëkk teew nit euh, nekk si ay gàllankoor kenn ñaanu ko yàlla da nga gis ñu ne diw denn biir néegam diw accidenté na ñoom ñoo fay njëkk a teew te sapeur dafa nekk loo xam ni euh, ñu war a dañ leen fulaalu te teguñu ko fenn du dëgg du yoon léeg-léeg am ñoo xam ni dañuy am urgence am ñoo xam ne des fois sax du ñu am urgence jékki-jékki. woo sapeur yi mel ni ku leen di fonto mel ni ku leen di mbëlle ma ne loolu du développé réew muy soldat muy gendarme muy police nu ñu ko joxee gëdd noonu la ñu war a joxee gëdd les sapeurs pompiers wala les soldats du feu gàcce ngalama les sapeurs pompiers sapeurs pompiers nag risque la xool leen par exemple immeuble mel ni euh, trente étages ba si cinquante étages boo ko xoolee sax yéen dëkk yu yi ñoo nekk si àll yi di fay da ngay benn forêt boo xam ni lépp jeex na tam sapeur yi ñuy mujjee ñëw fay ko euh, léeg ñu ñàkk seen bakkan léeg euh, ñu ñàkk ndox ñu ñàkk énergie loolu dañ leen war a delloo njukkal mooy les sapeurs pompiers xool leen lu mel ni par exemple euh, jox leen benn exemple amoon na benn dëkk ñuy wax Australie daaw daawati jël lakkoon na fa ñaari weer ba ñetti weer ñàkk sapeurs pompiers ñoo fa tey. risque seen mis métier risque seen i bakkan loolu dafa doy waar Sénégal nag laa gis réew moo xam ni fonk ñu sapeur tey ñuy fàttali bu ñu nekkee xale dañ daan respecté les sapeurs-pompiers yi léeg-léeg nga wax bi dégg seen euh, seen ambulance du corps ñooñu dañ leen war a xajal te ñooñu dañ leen war a delloo njukkal mooy les sapeurs-pompiers yi leen wooye les soldats du feu euh, di woo le ministère de l'intérieur mooy seen ministère di woo le président Sall dañu war a euh, doter des moyens logistiques et financiers aux sapeurs-pompiers sapeurs-pompiers nag moo yore réew boo amoon su réew du baax euh, ñu ngi si lakk yi wax naa ko ñu ngi fépp ñoom war a seen xarañ wane seen pastef di jóg di daanu sapeur la ñuy yee à deux heures du matin cinq heures du matin n'importe quelle heure euh, am na benn jéey ju metti sapeur ñoo fa njëkk a teew balaa ñu war a di fa ma ne gàcce ngalama les sapeurs pompiers les aux soldats du feu dañ leen war di décorer di honorer di leen di sagal seen xol loolu bu ñu ko defee sapeur yi ñoom benn problème mais di tàggal seen xol souvent à travers des interventions loolu dafay gàllankoor seen liggéey moo tax tey euh, jàngam tey bi nag ñu ko jëmale sur les sapeurs pompiers euh, sapeur boo xoolee risque la ma sax. nga dugg si benn immeuble boo xam ni mi ngi boy xoolal li xewoon fële ca euh, euh, dëkk boobu ñuy wax Diaga village boobu xam nag pétrole mu doon tàkk depuis trois mois suñu mbokk sapeur yaa ngi ko teew def te li ñu mën mais heureusement am na ay renfort des euh, des américains gàcce nga su moom suñu sapeur pompier yi ñu ngi fekk à travers la forêt à travers si instant yi di gën a grave xoolal marché di lakk sapeur ñoo fa nekk tey léegi des fois gis ay des fois faatu des fois gis koo xam ni dafa blessé ma ne euh, bu ñuy faral di woolee sapeur pompier dans l' exercice de leur fonction nañ leen jox seen gëdd nañ leen respecté loolu mooy sapeur pompier askan suñu gaal waruñu foye waruñu fontoo les soldats du feu plus ñooñu gàcce ngalama ñi ngi fépp dañ leen war di euh, defal di décorer at bu nekk man de mu doon un chef de état dinaa décorer que chaque année sargal les sapeurs pompiers ce sont les soldats du feu di sauver askan bi guddeeg bëccëg partout dans le monde dëkk boo dem dans le monde am na sapeur pompier ñu ma amee police ñu ma amee gendarme ñu ma amee justice ñu ma amee corps boo xam ni yaa ngi yewoo si biir askan bi encore une fois plus vive les sapeurs pompiers di leen euh, ñaanal yàlla euh, seen liggéey ngeen gën a góorgóorlu bu leen découragé nos Euh, soldat du feu euh, métti na liggéey bi ñàkk ay moyens liggéey bi am nay gàllankoor mais incha allah euh, war de président Sall bi nga xam mooy le président de la république mu gëstu les sapeurs-pompiers ce qu'on appelle les braves soldats di feu bi nga xam mooy sauver nation tout entière à travers le professionnalisme le dévouement et les engagements di ñaan yàlla suñu mbokku sapeurs yi yal nañu yàlla doole yàlla taxaw leen tey moom ki jàngat bi jëmale ko sur les soldats du feu fii ci Salam Vision à très